je ne pense pas situation war na mën nekk hors contrôle si toutefois que tey jii li ñi suñu jëwrin wax mooy maanaam ni gën a dugg ci askan bi maanaam gën a waxtaan ak askan bi maanaam gën leen jox ay jumtukaay loolu defe naa bu ñu ko defee rek mën nañ ci génn et en plus aussi euh, je crois quelque part aussi il faudrait que mu am euh, je ne dis sanction mais na am nit ñi lu ñu xaw a ragalee tuuti parce que ñàkk takk masque moo ñu indil lii yëpp ñàkk respecter distance physique moo ñu indil lii yëpp donc il faudrait mu am leneen lu nekk ci gànnaaw lool ah ñeneen réew yi def nañ ko euh, te génn nañ ci waa tey jii gis nañu boo demee Europe boo demoon Italie munoo ñemewoo génn te takkoo masque parce que boo takkul masque police da lay jox amende waaw. fii nit ñi dañuy génn te duñ tàkk masque donc defe naa loolu war nañ mën a dem ci port obligatoire systématique ci masque parce que loolu kese moo ñu mën a dimbali pour ñu rompre chaine de transmission techniquement tey jii li ñu xalaat moom mooy port systématique masque moom c'est fondamental war nañ ko mën a def parce que man j'ai toujours soutenu nee naa quelle que soit mesure ñu jël que ça soit des mesures d'assouplissement comme ni ñi ñu koy waxee wala réadaptation wala mesure draconienne tant que accompagné wuñu ko par le respect strict des gestes barrières duñ ci génn. waa quelle que soit mesure waaw il faut respect strict des gestes barrières maanaam il faut nit ñi tàkk masque boo génnee sa buntu kër war ngaa tàkk masque ba ba ngay dellu si war ngay mën a xàll sa diggante ak nit ñi loolu c'est fondamental mu nekk dans le transport commun dans le transport interurbain muy leneen am nit ñi bu ñu toogee war nañ am distance war nañ tàkk seen masque loolu fondamentalement bu ñu ko defee quelle que soit mesure dinañ ci génn mais loolu bu ñu ko deful ak li ñu indi ci mesure ak li nii ñi am volonté volonté ñu ci génn loolu moom lu leer laa la en tant que médecin. waaw boo xoolee ministre de la santé action sociale daf ñu wax nii comme chiffre nii la demee. il faut ngeen xoolaat seen taxawaay xoolaat seen taxawaay moom mooy ah na ngeen lëkkaloo ak askan dugg ci gox yi ak gox koxaani waxtaan ak ñëpp wax leen lan mooy jàngoro bi ak lan mooy ñoom seen taxawaay lan mooy seen taxawaay mooy ñu nga war a jël tey jii nga teg leen ci kanam ci kanam xeex bi tey jii li tubaab di naan lead leader ñoom ñoo war a nekk leader donc ñun dañu war a nekk seen gannaaw di leen jàppale. pour xool nan la ñuy def pour euh, population bi xam lan la ñuy bëgg a sàmp loola tax boo ko xoolee gouverneur de région fan yi dafa lëkkaloo ak ministère de la santé ministère de la santé lu jëm ci banqaas région médicale ak service bi ma nekk nii ñi ànd def quatre département Dakar yi quatre département yi ànd ak préfet yi waxtaan ak élus locaux yi waxtaan ak leader d'opinion yi waxtaan ak relais communautaire yi fa jox leen ay jumtukaay lu mel ni masque def ay cravate expliquer population bi ne dañu war a takk masque expliquer population bi ne dañu war a raxasu expliquer population bi ni war nañu xàll li ñuy wax distanciation physique suñu diggante wax leen lu tax ñu war a takk masque wax leen lu tax ñu war a def loolu ba ñoom ñu comprendre ko boobaa ñu def ko seen moomeel ñu mën a jiitu nag ci mbir mi